Assane mhm. euh, dañoo gis ay vidéo yu circulé ci réseaux sociaux yi mhm. am ci koo xam ne ñu ngi koy wax Serigne Xaasim Mbàkke euh, mu nekk koo xam ne itamit kilifa la di sëtub mhm. Serigne Touba ñu gis ay kàddu yu doy waar yu ñuy yëkkati defe naa mu metti képp koo xam ne it ab taalibi nga ndax jàpp naa ni tey euh, moom Serigne Xaasim mii la ma waxoon bu jëkk laay wax rek man su ma nekkoon ci naka sudul noonu su ma wooyee ni ma bàyyil ci lii nga nekk ma bàyyi ko parce que ñoom la ñu wax ne ñooy suñu kilifa ndax lii nga dégg ñu koy tasaare muy ab vidéo muy wax ni diw ak diw ak diw bay euh, xel ñaar ci seen baay Mbàkke la sant ak santul Mbàkke est-ce que loolu yi Assane la ñuy xaar nag. ci ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa yi. waaw kilifa yi de xaar ñu ci ñoom loolu ñu ngi doon xaar ci ñoom ñu werante si masala wala ñu xaar ci ñoom ñuy wax si seen mbindi maam yi walla ñuy xamle seen maam wala ñu fi jëf-jëf joo xamante nii leer na ni lii jëf ju euh, ju rafet la mm-hmm. waaye nag suñ demee ba ñoom ñëpp ñu soobu si plateau yi mm-hmm. télé yi soobu si politique bi di parparloo di wax lu du dëgg di xastante di yàq yàkkante lu mel ni xay mm-hmm. loolu yi su amee wax dëgg yàlla jot na ñu taxaw seetluwaat mais jamono ji ñu koy defee moo moo doy waar ndax jamono joo xamante ni ñun dañoo jóg di leen défendre ñoom takk suñuy ndigg ku leen joxañ ñun ñu jël dal ci sa kaw ni lan moo tax nga joxañ ñii uh-huh. ñooñu wëlbatiku nag gën ñoo suufee gën ñoo xeebu di wax wax ju ñaaw di saaga ak di tuumalaate te ñu yaakaar leen te leen di défendre ñoom uh-huh. te ñii man li ma gën a naqari ña nekk bitim réew dañ ko daan def moom uh-huh. lim def ni diw diw du baayam diw diw diw diw juru ko man may jóg di attaqué ñooña nekk bitim réew ndekete ñi nekk fii si biir réew ñoom ñoo dàq loolu est ce que ñoom ñii daaw ñu joxe loolu ñooña est-ce que ñoom ñi daawuñu bind ab message naan diw diw juru ko di lijjanti jureel jureel gi. Hmm. te ñoom ñii ñëpp dañoo fer ñun la kiyee sa baay kiyee sa yaay wala nga fer rek xàmme sa weenu yaay seex. Hmm. léegi yaa ngi yaa ngi fer yaa ngi ngi judd di seex sa weenu yaay ba màgg xam ne kiyee sa yaay boo ko gisul jooy ba ni xamee ni kiyee sa yaay ñun la kee mooy sa baay nga topp ko naan kiyee sama baay di ko ndamoo te yàlla xam na ne man naa am sax. Ah. offara naa ba nga jógee <laughs> waaw buñ la lijjantee man naa am offara naa ba nga kon nag lijjanti baay yii. <laughs> Hmm? lii loolu lu baax la la. <laughs> offre naa kay bu ko jéem a lijjanti. orphelinat la bu ko orphelinat. Assane sois sérieux offre naa <laughs> ah meilleur chroniqueur léegi nii offre naa. Ah. <laughs> mën naa am naa am foofu lañ jógee kon bu ñuy lijjanti yooyu en tout cas daal kenn ku nekk buñ ne laa di way sa baay di way sa yaay jàppal ñooña te nga bañ a lijjanti nuñ jëlee sa yaay ak nuñ ko nu bu lijjanti yooyu nañ kenn ku nekk daal fonk ay waa te te bañ a xeebal keneen ay waa waajuram tañ tañ sóoraale ni ñoom diine moo leen nàmpatal kon nañ waaxu jëm ca diine joojee ñun ñoo war a def loolu ñu ñuy xeeb mm-hmm. ndax fii gis nañ fi ko wax dara ñëpp génn di ko attaqué naan ko tuubal ak bul tuub tuubal ak bul tuub te kii nii dégguma kenn wax wax ci dara kan la kii dégguma kenn wax ko dara ah ku koy wax dara yow yaa koy wax dara ah waaw léegi nag lan moo tax ñun taalibe yi bu ñu waxee ñuy xoqatal naa ah, yow yaa wax fi taalibe day dégg ndigal asan bu ñu fontoon dégg ndigal nañu bokk mu dégg ndigal te déglu leen ah, ñu bàyyi leen ñoom ñuy saaga ak non non non non non nee nga taalibe nga ah. léegi loo ciy wax loo koy wax da nga koy tuubloo sëb sëriñ di dem naan ko tuubal li mu wax nii dafa ñaaw non non mais sëb sëriñ beneen bi site bi ko teg da ko dagg ay séance gi seetaan naa ko biig seetaan naa ko ñett yoon seetaan naa ko si ay kii kon ñoom ñoo ko jublu jël photo ñoo ñoo ko ca xam ne waaw man de lii moom lii lii lii maanaam lii sëriñ bi wax wax démb Sénégal bu doon solution gii la ko waaj waxee émission bi du jàll Sénégal fii solution musuloo dox si benn groupe WhatsApp wala nga dox si benn TikTok nga gis loo xamante ni nit ñi dañ koy ñaawlu mu doon buzz buzz mbirum buzz ñu ni xoolal nga gis fi logo solution doo ko gis mm-hmm. ndax ndax solution doxewuñ comme ni site internet yi doxee maanaam xëccoo buzz gisoo sax nit ku gën a nekk si buzz gisoo ñu koy dalal fii waaw ah, gis naa ñu ne ci bës di la woo sax pour nga dalal leen man nekk si bës bi naan xanaa gisoo bës bi ma amee dama naan seereel bës bi mois deux mois seereel bës bi hmm. man li ma bëgg ñuy waxtaane xam-xam ndax fii dañu fee teg pour rang yi di jub waaye waruñu fee nekk di yàq asgor te ñu koy sabab kon si internet nañ xool li ñuy def son jërëjëf mesere jërëjëf jërëjëf mesere alaaji kon mm. Serigne Cheikh Thioro ñu ngi koy nuyu ca Touba Serigne Cheikh Thioro Mbacke ak Serigne mm. Assane Mbacke. Mm. wax dëgg yàlla bañ juddoo ba léegi loolu lañ xam ci ñoom ni Mbacke lañ sant. am na keneen ku génn ci ñoom ni Mbacke la sant daal ma ngay xebet seenu sant ba ni sax est-ce que est-ce que. loolu est-ce que loolu lañ doon xaar ci ñoom ñi suñ kilifa. waa xam nga paren saay boo jëlee yenn coup yi. Euh, dañu mel ni boxeur bu jël coup rek. boxeur euh, waa ji waxu kuy katakay ne la wax maanaam waxu ku wul quoi. maanaam wax joo xam ne maanaam ku ñu dóor mu jël ko. Hmm. Euh, xam nga léeg-léeg nga gis. mais ci wax mosu gis fu sëriñ. fu sëñ Cheikh euh, Thioro ak euh, sëñ Assane Mbacké amee ak moom problème de. non non mais dafa jël ko dafa am féete dafa féete. Hmm. féete bi mu féete. Hmm. bu dee les autres ñi ngi émerger. ci seen cëggal guy maanaam ci seen jëmmi bopp maanaam ñoom fexe nañ ba ne ci jamono ji ñu toll nii. negg ñu ne nit ñu bari nawloo leen nga xamante ni boo nee diw mhm. diw ngay gis paren say day am ñoo xamante ni bi nekkut ni ñoom la ñuy gis quoi en face maanaam tey bu ma maaseek yow mhm. bokk ak yow même kartie ngay dox ci wàllu politique boo xamante ni bi nit ñi bu ñëwee tel parti ci tel dëkk nit ñi loolu la ñuy wax même ñi nga xamante ni bi yow yaa ngi nekk ci beneen parti sax dañ lay wax ne la comment faire dalay wóor ne la ñi nga nekkal. gisuñu la. Mhm. bu ñu amut fu ñu la mën a xasee euh, dañuy sànni wax yu ñaaw yi nga xamante ne bi moom la sànni wax ji. li lay wan ne la wax ji amut solo. Ah, tey ah. dafa bëgg non wax ji amut nja amu am wax ji wax ji moom ci boppam. mais wax ji wax ji moo amul. mais wax ji diis na de. moo amut sens. mais diis na waaw diis na. Mhm. Euh, boo ko diisalee rek mu diis. mais mi ngi dépendre ci askan wi nga xamante ne bi ñoo koy jël quoi maanaam nit ki euh, boo ko dóoree ba noppi mu saaga la mm-hmm. maanaam waxu saaga la quoi wax la joo xamante ne bi yaa ngi jublu pour saaga nit ki maanaam euh, daf daf ko saaga quoi li mu xam nga alaaji xam nga tey nit ñëw saaga ma waaw bokkul ak nit ki ñëw jël àdduna bi yëpp di ko dégg mu ni songe bu waaw na dem xool ji na dem wuy ji wër ji baayam ndax borom boutique ba nekk ca nàngam ba waaw ah, mais alaaji loolu waaw mais xam nga bokkul ak saaga nga loolu mu wax noonu xam nga loolu mu wax noonu hmm. saaga la maanaam da daf lay xëj xam nga tey ji parents saa yi da ngay gis nit koo xam ni daf lay wax wax joo xamante ni dafay bëgg nga tontu ko kut ko kut hmm. maanaam loolu la bëgg fi mu toll nii waa ji dafa bëgg euh, parce que kii defe naa ni son yi bu xamoo ko woon hmm. waaw yaa ngi dégg. maanaam dafa bëgg kii xamoon nga ko. way laa boo xam ñi ko xam bariwul maanaam dafay wut tur ci wax ju ñaaw ji la bëgg a tur hmm. parce que tey jii waa ji mënoon nañoo wax tey hmm. euh, def ay émission ba keroog kii mais kenn du ko tudd hmm. parce que euh, ci domaine bi mu nekk moom ba tax muy wax wax ji muy domaine politique tekkiwul dara ci terrain politique boobu maanaam yeggu fa benn niveau bi léegi nag dafay bëgg a wut tur Euh, seet ñenn mu saaga leen mm-hmm. maanaam li mu wax daf leen a saaga mm-hmm. daf leen a wax wax joo xamante ni léegi nag dafa bëgg ñële tontu ko mm-hmm. loolu la loolu lay wut quoi non jàpp man dinañ ko tontu ah waaw loolu laa bëgg nag wax ñële bu ñu ko sax tudd parce que defut lu dul wut tur comprendre nga xam nga li gën a garaaw ci àddina bi euh, mooy dafa am foo xamante ni fii rek fa lañ doon jëmale wax yi mais boo seetee wax yi gën a ñaaw yuy jóge ci ay nit di dem dafa am tamit feneen fu muy jógee. Mm-hmm. mooy mooy comme lii. comme lii lii mm-hmm. lu ko gën a ñaaw quand même. Mm-hmm. wax ji nga xamante ni moom la wax léegi moom wax ju ñaawee ñi dégg léegi nag man dégg naa la sax nga ne kilifa non am na wax yoo xam ne bu ko nit waxee bu ko tuddee ci kilifa. parce que mënut ko doon. waaw mais kër kilifa la dëkk. non waaw mun noo dëkk kër kilifa taxut a doon kilifa. suñu borom jàngal nañu wan ñu ko ci ay anam. jël na koo xamante ni kii tey son bu jàng nga. jël na doomu yonent. boo xamante ni bii gëmut way juram du dëgg doxalee neneen loolu yëpp yàlla da ko def hmm. pour jàngal ñu hmm. ngir ñu mën a xam ni hmm. am na ñoo xamante ni bii tey euh, parce que kilifa du wax lu ñaaw kàddu gu ñaaw du jóge ci gémmiñu kilifa képp koo xam ne dañ lay wax ne la kilifa nga sa làmmiñ di génne kàddu yu ñaaw dañ la koy tuddee waaye doo ko doo ko comprendre donc nag fi mu nii yow euh, loolu moo tax baat boobu il faut nga dindi ko. waaw non tuddee ko leneen. ba mu des léegi ma li ma bëgg a wax foofu mooy dafa dafa war a nekk nit ku mat. pourtant moom. tuumaal na gouvernement bi mu bokk. Ah. ndax xam nga président Macky Sall bi ñu ñëwee dañu passeport diplomate yi ñu joxe yu dul yoon. waaw ah. yëpp dañu ko nangu woon amatul. Ah. mais moom nee na sëriñ bii nee na Souleymane Sy Diop jox na sëñ Abdou passeport diplomate yu bari sëñ Abdou jaay ko. waaw. wax ji àgg na boobu foofu. mi ngi fi wax na ko. nee na passeport diplomate sëñ Abdou mooy sëriñu Ousmane Sonko waaw xam nga moom su sëriñu Sil Diop la wala wala kii am. nee na Sil Diop passeport yu bari la ko jox Sil Diop fu mu jëlee passeport yu bari yooyu ba koy joxe. ay diplôme xam nga li ñuy wax nii. c'est grave c'est grave hmm. c'est li ñuy wax nii. Hmm. leen la rek naa ñëw wax lu kenn ñemewut a hmm. ma wax lu kenn dul wax ma wax ko jëmale ko ci ay te nag gis nga dafa am terrain boo xam ni. Euh, nañu éviter di dugg ci yenn terrain. xam nga waxoon naa la fi ci wàllu. bi ñuy wax vidéo ma ne nañ moytu di dugg ci ay vidéo mën nañoo monteel ku ne. Mhm. gis nga bés bu ñu duggee ci terrain wu diw diw du baayam diw diw du baayam. Hmm. yaa ngi dégg mën naa dooy waar lool il faut que ñu jël yooyu teg ko ci suuf. Ah, paa yi de mën nañoo génn. <laughs> paa ya yan paa yan paa ñooy génn. Assane. <laughs> c'est dafa am tobelu Assane. <laughs> xam nga xam nga dañ la wax ne la <laughs> dañ lay wax naan la jigéen rek mën a wax ne. Ah. diw diwoo ko jur. waaw du dëgg. dëgg mm-hmm. lañ lay wax. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga. Ah. maanaam wax yi daal nañ ko moytu daal. nañ moytu wax yii di ci dugg. Mm-hmm. waaw léegi ginnaaw bi ñu ko moytu. alaaj boo seetee wax ji nga gis ni kii day xaste. maanaam xaste la jublu ci wax ji quoi parce que boo seetee wax ji rek da xam ne wax ji du wax du waxu dëgg. parce que lu tax maanaam xaste la ci jublu. boo seetee mu naan. kay dawal mbaam ma. ca hmm. kii baag. Hmm. c'est wax ji quoi ngay dégg. Ah. tuutal tuutal quoi tuutal. maanaam pour tuutal nit ki pour saaga ko la. Hmm. maanaam saaga la rek. ah dégg dafa am yoo xamante ni bii nañu génn ci terrain wu. yooyu parce que terrain yu bés buñ ca xuusee. mën naa doy waar. mën naa doy waar lool. donc euh, il faut ñu arrêté. léegi léegi bala ñoo génn foofu xanaa dooni ma noonu ngay bàyyi itamit site internet bi nga xam ni moo leen dalal. parce que lii bu dawoon fii man laaj gëm naa ni su dee yaa ngi koy dégg sa nopp. Mm. di nga ni lii bu mu fi jàll. non mm. c'est que xam nga sooy bu ñun moom suñu boroom dimbali nañu ci lenn. Mm. am na loo xamante ni bi moom doxeewuñu ku yor sa wax ju rëy. yaakaar ni boo ko waxee réew mi tàkk. pour dal ci kaw nit. jëluñu la parce que ñun soxlawuñu loolu. wax ju rëy parce que tamit lii ñu yor. néewoo bari ñi ñuy xool jox nañ leen cër mm. respecté nañ mm. leen mm. am na yoo xamante ni bi son yi xam nga tey jii mënoon nañoo jël kàddu gi sax teg ko fi waaw mais teguñu ko loolu yëpp tamit sensu responsabilité la parce que jàpp nañ ni lii ñu taxawalkat mbir la moo xamante ni dafa war a bokk ci liy defar ci réew mi waaye du liy yàq am na ñoo xam ne nag liñ yor nag ñoom dañu jàpp ni ci kaw mbir yi di yàqu ci la ñuy defaru ñun nag ah. dañoo jàpp ne ci kaw ñuy defar ci la suñuy mbir di defar donc nag bokkuñu ak ñu bari ni ñuy bokku ñu gis-gis. ba tax na am na yoo xam ne bi duñ ci dox. Mhm. aywa kon mi ngi noonu suñu confrère yooyu ñu ngi leen di bàyyiloo xel loolu waa euh, dafa am ñaari sites yoo xam lu ma fa dégg rek damay foog ni dëgg la. Mhm. muy euh, euh, Seneweb ak Dakar Buzz dama leen di damay rafetlu seenub liggéey vidéo bu ma gis ñaari rek ñu gis ma gis ci seenub logo dama naan lu ñu wax dëgg la kon moytu leen yu ñaaw yooyu di faral di am ci seen palato wala boo ngeen moytu émission direct parce que direct c'est très sensible voilà Assane nag nee na nañ moytu paay wax Euh, euh, paa yi bu ñu génnee dañ naan kii doomi ma dañu diwee sama baay ñoom dañ lay xool sa kanam ne eh, kii doo kii du doomi mag de waaw mën ngaa xool gone nga ni Assane waa baax na laaju ma ne léegi waa baax na doomi mag waa bul ñambaas yow xamee woo doomi mag waa baax nañ Assane bul ñambaas ah yaa ma yaa ma yaa ma yaa ma bu ma xëy de bu ma xëy bala maa àgg saa moom waa baax na bàyyil bul ñambaas